serigne bi biñ ko gisé ba fiñ ko noppé gis fi dara lu borom ak yoonte bi kon lu nu doye di doyee de lu lu ñak solo war nañu xam li nu am war nañu xam li nu fi serigne bayil muy suñu ndono loolu dal lu wéta yalla rek sax dak ci yamuko xamit sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li nu nekk lool muy lim nekkoon rek ak lum nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu nu war a fàggul tey ëllëg fàggu na ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan na ko te jubóo muy pàgg bi téeb bi jubóo na ci bu dee ñaan bi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul lu waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif àdduna euh, moom mel na melo bi rek la am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu ya ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci li bëgg doyloo ko ci lépp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 wa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun loolu rek doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmale ci seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon. kon nag ñun sant rek lañ war a def sun borom mi nu boole sëriñ bi sant sëriñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag ñoo ngi jéggalu ñëpp ñu baloo xaq ñëpp di ñaan ñu balonte xaq ñëpp

taxaw tem ci li ñu fi andi jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel ne tiital na ñépp waaye dan faaw nu ñaan suñ moroom yépp suñ mbokki jullit yépp suñ mbokki taaliba yépp yàlla daqal nu ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut te fañ ko yem loo mu yem fa waaw waaye du tee ñaan ndax ñaan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 noo ngi sant bu baax a baax a baax eh, kàddu yi da mënta ñàkk waaye eh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam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 waaye nag alhamdulilahi rabil alamina mën na noo am xel su xel mën na noo daal naa dal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi ah, sëriñ bi moom li may wax ne rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu ñu ko gën a xam di di jege lu ko gën a dund di gën di mucc di raw kon noo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi eh, li li li ngeen ci man lépp def ngeen ko waaye suñu borom moo demee noonu te sëriñ bi it euh, kenn mënu ko roy kon noonu ci diggante boo xam ne euh, xam suñu bopp xam suñu wartif di ci góorgóorlu suñu kéem kàttan loolu rek moo ni dimbali dund bari na gàllankoor lool ay ay xat-xat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 ñëpp tàllal ñëpp tàllal